لي سكينة بكل الجنة من داري من نيات المنة tooli Hisnul Abraar yu Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre yi nga xam ne moo nekkee ci biir Jolof kilifa yu bëree bari ñëw nañ fa ngir saafonte ak moom waaye ndokkeel ko ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni ci la nekk di ci liggéeyal sëriñ Touba ci tool yi bokk na ci daara Hizbut Tarqiyyah ji nga xam ne ci njiital Serigne Youssou Diop ànd nañoo ak délégation bu takku ñëwoon ci tool yi Hisnul Abraar yi ziyaare ba Bassirou Mbacké moom sëriñ Abdou Khadre waaye ndokkeel ko ci liggéey bu rëy bii nga xam ne ci la nekk saasu ne muy liggéeyal Cheikhul Khadim bokk na ci it kilifa yi nga xam ne ñëwoon nañ fa ci tool yi Hizbut Labrari yi muy sëriñ Mouhamadan Mbacké moom sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Abibou Mbacké moom Cheikh Mouhamad Fadal ak sëriñ Amsatou Mbacké moom sëriñ Abdou Lahad ñoom ñëpp ñu ñëw daal di ba Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre ci liggéey yi nga xam ne ci la nekk saa su ne mu liggéeyal maamam ja di Cheikhul Khadim fii ci toolam yi nga xam ne moo nekkee ci Jolof di rek ci tool yi nga xam ne am na ko ci réew di Sénégal mu ci liggéeyal Cheikhul Khadim ci daara ji nag amal nañ fi jotaay bu am solo boo xamante ni mboolem kilifa yi kenn ku ci ne yëkkati na fa ay kàddu yu am solo indiwaat ay kàddu yu seede mu jëmee ci jëf ji nga xam ne sëriñ Bassirou Mbacke moom sëñ Abdou Khadir ci la nekk saa ne. waaye nag ñu sant yàlla bu baax sañ am sa ndax lii wéyfut jamono ji xat na lool ba jéggi dayoo ak Cheikh Habib mii ni ni leen yàlla boolee ci booleeg sëñ Touba gi seen ñaari waajur yi meloon noonu doonoon benn ndax soo fàttali ko euh, bi muy léemul si sëñ Abdou Fatah toolam yi Touba ndigal ànd ak sëñ Abdou Lahad ak sëñ Ousmane Bousso bàyyib àlaji mi tey bañ agsee dafa daal di wax sëñ Abdou Lahad ni ko jàngal loolee ma jàngal loolee wax sëñ Ousmane Bousso ni ko jàngal saar sàngam ak saar sàngam kon loolu benn ko sëñ Abdou Lahad jóge rek kàbb di jëm si Touba kebe meer ba fa agsee fekk sëñ lu nekk ci kër sëñ Omar Bousso di fa def ngan mu ne nan jàdd fii siyaare sëñ Fallu door jàll noo agsee bi ñu fekk sëñ bi dem na ca mbaar ma ñu ñëw ci néeg bi ñoom toog bañ toogee nag suñ sëñ lu yàgg ca mbaar ma nit ñu di ko siyaare am ko ko ni sëñ bi day waxtu sëñ sëñ bi balaa dikkaat fii ca mbaar ma lay jullee door a dikk kon doxal ci ci karam nu julli bisimilah mu daal di julli ba sëlmal sëñ Fallu ni dara agsi ni julli ngee na mu ni ko déedéet daal di la xaamaat sëñ Fallu taxaw mu jiite kàbbu kàbbu googa it nit taxaw fa ni taxaw na fa ni weer waa nga nee mu ni ko tuubal baat boobu nga wax noonu nun duñu gis weer dañuy gisal weer sëñ Fallou rek la ñuy déglu loola nag Mbàkke noonu la seen ñaari waajur meloon yàlla waat leen ñun ñëpp nuy benn ndax li nu bokk dañ ko munti séddoo muy sëñ Tuubaa ndax kenn ku nekk sëñ Tuubaa rek ngay xool ci sa moroom lu suñu waajur bi doon xoolantee sëñ ci seen bopp loolu mooy suñu jataayu tey bii moom mii nag dëgg la la la laa sukkura alal waajib waaye dañ danañ ko beral ngërëm moom sëñ Basiiru bu baax ndax li weesu tey ji ñun ñu fi tase ak li weesu lépp buñ ko xoolee suñuy mag ñëw nañ fi suñuy wëlëri ñëw nañ fi bokk yëpp ñëw nañ fi te kenn ku ci nekk nag lu mu yow moom ci boppam moo tax nga def ko ndax nit ñi moom euh, du leble fay bor moo ci te kenn ku nekk bi ngay ñëw fii ci sa coobareel bopp nga fi dikke ak lu mu diggaale ak yow loo xam ni wolof day wax ni saa bu nit ne xaw ma nu moo koy def nam ko def a tax loolu mooy suñu jotaay te yi ñu bokk fi tase kon nag sant rek bu la ñuy def bu baax gërëm suñu abibu te xam ni euh, moom mi daal lottu na ci jotal cant gi ci xolam ndax déplacement bi ak na jamono xate ngeen di kilifaam defal ko ko euh, seenu pay ci loxo suñu tubaab la koy bàyyi di ñaan yàlla ci barkeb Seexul Xadim yàlla defal leen lu ko weesoo jot di ñaan yàlla jéego yi ngeen ñëwee fii muy jéego yi tëj bépp bépp buntu safaan dellu bi di di di jéego ubbi bépp buntu xéewal ci barkab Sëñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakatu. Cheikh Mamadou Basir ñu ngi lay nuyu. di jot itam nuyoo ñi ñu àndal. ak bokk ñu fa bàyyi. te xam ne ñoo bokk yéene ñoo bokk pas-pas ñoo bokk bëgg-bëgg. lii nag day sunu warugar. di waajib ñun ñu da koy def. ak loo seq ak noonu noonu bi ñuy ñëw pas-pasu siyaare sëñ Tuubaa la ñu amoon maag sëñ bi loolu la ñu waxoon xam naa ñëpp ci lañ bokk pas-pasu siyaare sëñ Tuubaa ndax lii nga nekk day bëggu sëriñ bi te it moo sos yoon yi moo ko fondé te garab nag la ko ko saxal moo koy moo koy màggal moo koy rose moo koy màggal waaw muy sas ay daara dafa jàngale dafa jàng di fa yare di tarbiya ak tarbiya wa taalim boole ci at tawjih wa takwin formé xale yi ba noppi orienté leen ci mbaax ak njub loolu la sëñ Tuubaa nekkoon loolu la suñuy waaju nekkoon kon boo ci nekkee dañ la ci sant di la ci gërëm te di la ci ñaar itam suñu borom ndax mooy yoon wu jub bi yoon wu sëñ Tuubaa yoon suñu borom naan fattabi'u mooy bi wala tattabi'u subal la wax inna saa siraati mustaqim fattabi'u kon yoon wu jub rek mooy bi da cee bokk nag ci batali sëñ Tuubaa muy lii batali sëñ Tuubaa yi bi ci gën a ñor fi mu toll ci des dama dégg ko sëñ Saaliw mooy laadan taalibe sëñ Tuubaa yi mooy boobu mooy mooy ci des ci des tam tam tarbiya di tarbiya yi jàng itam nee na dafa bokk ci eh, ay bataleem bu ko ñëpp mën di def war war nañ cee barkeelu kon nag soo wotee bi liggéey fii taalibe sëñ Tuubaa yi di fi ñëw di ci barkeelu kon yaa ngi dundal loola te nag eh, am dal ku gundal moom suñu borom moo leen dal moo yor sag pay te moo moo moo warlu itam ña ko jëf ndax allasina amanu amale sal tuba lahum mën nañoo wax ni bu la neexee comme alquran allasina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm wax am loo saala te ñu def lu baax moo xam ci tool yi sëñ say la wala tool yi sëñ Abdou Xaadir wala tool yi sëñ Abdou Lahat tuba lahum ba ci kon tuba lahum kon waxu sama abin fañ jëm fu baax la ah. kon nag soo defee ñu ñëw ci dañ ci am mbégte dañ ci am kontaante waaye dañ la ci ñaan rek comme ni ma ko waxee dañ ne ku ñaan ñàkk su jëndee am wala neexoon def leneen lu dul lii ndax ndax li nga fi jëlee itam lekkoo ko bay lekk ak jur doom liggéeyloo ko ne na ko sama sëñ bi daan wax séeréer rek koy def bay lekk boo bay da ko war a jox sëñ te boo ko joxee Sëñ Tuubaa day dolli ko ndax dañuy dañuy yàlla la ram boobu mu gërëm loo ko defal am ci boo ko joxoon benn dërëm mu fël ko jox nee na inna lasina ni mu ko waxee sax inna lasina bàyyoon rasoola bi xidmatin xat bàyyoon jalila ñu jaayanteeg euh, yonente bi suñu borom lañ jaayal waaye ñi bàyyi jaayanteeg sëñ Tuubaa itam yonente bi lañ jaayal kon li ngay def fii sëñ Tuubaa nga koy defal li fi jóg itam sëñ Tuubaa nga koy delloo yëg naa ne doo ko jëfandikoo loolu nag tijaara lan taboor la commerce bu lëmbut la kon nag ñu ngi ñaan ci pris ci ci ci njëg googu nga xam ne lëmbut sa njaay moom nga xam ne lëmbut yàlla sukkandiku ci noonu ba mu noo dimbal tey ak ëllëg ñi fa ñëwoon te liggéey te sëñ Tuubaa rek taxit ñuy liggéey yàlla sukkandiku ba dimbaleen tey ak ëllëg ndax euh, mbirum sëñ Tuubaa lii rek euh, firnde la ci dellul gannaaw ndax toujours yaa ngi dégg euh, euh, réseau yi ñuy wax lu ne lëggéeyal sëñ Tuubaa jeex na dootu dem ku leen lëggéeyal ah yow ñi gën a ndaw ci njaboot sëñ Tuubaa ci ñi nga war ñëpp a la wusi kon xam nga lëggéey sëñ Tuubaa jeexut bu ko sëñ mën taxaw tam nii lay mel kon sëñ Tuubaa la mu def ci kaw da koo def ci suuf pikir la boo xam ne ba mu ko rofee ñëpp la màndal kon nag kuy sàkk lu baax bu ñëwee fi am ko kuy sàkk ngërëmu sëñ Tuubaa bu ñëwee am ko fi ndax kenn ay fay muy sëñ Tuubaa na ko na ko daan yéene joxe ñooy nangu sëñ bay fay kon nag ñi fi jëf te yàlla rek a tax ak sa jëmm ndax am na yooyu lépp li nga ko seq nit moo tax ñu def ko ndax koo xamul noo koy def nam la dafa tax man ni nga ma def moo tax mu ñëw gannaaw mujj na sàkku ngërëmu sëñ Tuubaa ba noppi dama ci doyal mukk nag te duñ ci doyal mukk nun ñëpp hmm? kon nag yàlla nañu ko daj ci barke sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Amsatu sëñ Mahmoudan bokki taalibe bi fi teew ñu leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen wax ahlan wa marhaban wa bikum dal leen jàmm ci Hisnul Abraar nga xam toolu Sëriñ Tuubaa la ñu ngi leen nuyu tur Cheikh Mouhamadou Bachir ci njaboot gi ñu fekk yëpp yëf yi dañoo jege ba duñ ci mën a sànni duñ ci mën a wax ndax nit ki di bopp daanaka day mel ne du xam ni ko tuddee daal waaye xol boo sedd weesu xedd bii fi ñikkee rek la suñu xol sedd suñu yaakaar yokk sëñ bas bu leen ko sant dañ ko ñaanal rek ñaanal leen ko sabaru musal ko dimbale ko turu dëkk bi ñu ko jox suñu Muntaxa tuddee ko dëkk bi Hizbul Abraar na bokk njëmi sëñ Tuubaa yi xamee ne lépp lu ñaan ci Hizbul Abraar xasida googee yàlla da ko fi defal saa ko euh, ko dimbale sedd guy ci ni ngeen def nga xam ne ngeen waaye di magam rek waaye wàcc seen bopp ba tool moom def ko ni ngeen def seen jëm bopp ci loolu kenn du ko yeesu kon ñu suñu xol seet na kuy ndax yoon yëpp teew na fi kër yi kër yi kër ko Sëriñ Tuubaa yëpp teew na fi kër yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy seex Sëriñ Tuubaa ñëpp teew nañ fi am na ñu xam ñoo xam ñu sax Sëriñ Mame Mbaye Niang nii wala Sëriñ bi Niang ak njaboot ñu ànd ñëpp teew nañ ñi nga xam ne seen doom nañ muy Sëriñ Abo ñoom ñeeg wala Sëriñ Chouaïbou ñëpp teew nañ wax nañ ne daal yoonu murid moom kenn koo xam ne teewul maanaam maa ngi jéggalu yeex gi ma yeexal ñëw ndax dafa nekkutoon moo tax ñu ma yeex a ñëw naa maa war a ñëw yeewi si nit ñi ndax ker bi ñu gor gor bi maa ñëw yeewi si euh, ñu ko la gor kon ku fi ñëw man ko fi ñëwal cant gi sëñ bas wu leen sant maa leen war a sant maa leen war a gërëm maa leen war a boole sëñ Tuubaa ñaan sëñ Tuubaa mu bàyyi leen fi yàgg yàgg yàgg li ngeen ko defal day rëy na lool euh, cant nag fi mu ne dama daa am na ko jox suñu jàggee day la ma xoon sëriñ bi da ko xoon ne ko day li ma defal day jaajëf moom su ma xawoon kàddu kàddu ko jiitu ma def ko waaye can waxul ko yeesu li ko defal tey ji ci moom lool mel na ne si si Abdoulaye moo teew ci raay te loolu amul sikk maa ngi ko wax ci bis am bis boo am sa dañuy waxtaan <coughs> ma ne ko si Abdoulaye day dafa ñëw si si Abdou Khadi gàlla si ko bañ jëfandikoo ba noppi si Abdou Abdou Khadi daa ñu ñaari dàmbi gura ay ay tàmbi i maanaam ay ay kii xam ne mu ne dàmbi mooy ay ay ay taxañu yu mag lu ñuy di ko si Abdou jox ko de ko de ko fasal nañ ko ci ña demoon sarsaara la ñu amuñu ko ci man ñu yàlla defal ma saa ci gurgóog yi kon loolu tim si woo mooy tànk tey ji rek yéen ñëw fekk si ko fii fii daal li ma leen ci sas moom danañ pañe moom lu am Sëñ Tuubaa pas-pas ko ci Sëñ Tuubaa bëgg ko may ko ñaan leen ko moom mii yàlla guddal fanam lii mu yoroon Sëñ Tuubaa dara bu jàq ko ci loxo na dugg ci yaa rabbi ij'al muriidi maan fi ihsaanin wa sallim na dugg foofee te ko taxaw ko kii gën li mu yor yoon yëpp ko yoroon ñàkk si nag moom moo ko yor ndaali ndaali nag da ko yenoo kon nag ñu ñëpp dañu ko jàppale ko ba bu mu fi am ndog mu am ndog ñoon li suñ ko waxee rek li ñu wax suñu bopp lañu ko wax rek ñu ngi sant yoonu murid yëpp di sant njabootu sëñ Tuubaa gi fi teew yëpp waaye di sant Seex sëñ Tuubaa yi ak bokk taalibe yi nga xam ne ñoo rek dégg ñëw ngir jëmmi sëñ Tuubaa di seet si woon sëñ Bass mi kon loolu ngeen kon sëñ Bassirou lebal lañu bëgg boo xam ne yàlla ñu ko yàlla dimbal bi nañu ko fay nit ni ko sëñ bi waxee de ko nu nu ma ko def na ma defa tax dañoo wax ne nit ki bu la defee lay ñëpp gis na nga ko cant cant bu ñëpp dégg kon cant gi moom ñu ngi koy dajal àdduna sépp nag ndax ñëwuñoo fa ñi waaye fa ñi nekkatuñu tim ñu jàkkaarloo ñu ñu ñëpp ñoo nañ kilifa yëpp ñoo nañ kër yëpp ñoo nañ gis nañ ñëpp kon nag cant gi ñëpp lañ ko dajale jox leen ko yàlla mi xam ma am pay yàlla na fay yàlla na yàlla dimbale ba fekk di bu kenn manqué ku naan manqué yàlla ko yàlla jël ci xar yeeg nag yi béy yeeg ganaar yi ndax lépp yàlla yàlla ko bindee sëñ bi tànk yi ngeen dikkee fii de ñu ngi ci ñaan ci bàkki sëñ Tuubaa yàlla ngeen bokk jiw sëñ Tuubaa yi ngeen ci bokk ñi nga xam ne sëñ Tuubaa dana dama ëllëg te loolu yomb lu yomb yàlla lool du dara kon san nañ baax gërëm nañ leen soo ko seet na guy guy dañoo mënut wax rek ci jege gi mu jege ba ba am loo xam boo ko waxee day nduru leneen waaye dikk li yàlla def ci moom boo ko wax rek ku fa bay jëlee kon yàlla na yàlla yàlla ko yàlla rek te dimbale ko te ñaana ko yàlla rek loolu la ñu sant ci ndax lu wóor na ko ñaan Sëriñ ko ëllëre loolu ko def yëg nañ ko nee ko mën a def ci àdduna waaye amul nag fu ñu ci yéen ndax men daa foor moom mi dañoo bokk men maag moom suñu yeen noonu men daa foor bu ngeen ko defee neen tim wax lee yàlla xam ne bu leen ko waxuti naa tee sama bopp ci yéen waaye yëg naa ne nañ ko bokk yéen moo tax ndax seen maam soo fa jël sa soo fa soo soo jël fa si baas moo moo moo moo moo suñu maam jigéen moo ko moo moo gën a nekk muy muy muy muy bàjjanam lii bokk dafa yàgg lool ci jëmm tey doo ñëw si laa lu ne def na ko suñu maam jooju ñu ñaan yàlla yokk leeram ak yërmande yéen lépp ngeen doon ci ñoom loolu suñu bés xam na ko ñun ñi xam nañ ko jàpp nañ ko tim waaye yéen jàpp ngeen ko ñi ngeen def nag yàlla rek moo am seen pay yàlla na yàlla fay suñ tuwaa daa ñu taxaw di ñaan fii takku saadi gi gaaw bi nga xam ne bis baa ngi bëgg a jeex dëkk bi yàlla na bokk ci bundi kër sëñ Tuubaa yi nga xamante ni na dam ñaañ Tuubaa di ab di murid sadi xi lafu bi xibati aw bi aw yaddi yaddi yàlla fi loo ngeen ko wax di noonu rek la am solo ndax sëñ bés ngeen la góorgóoru baax ko wax am nga sas am bu rëy di waaye am nga sas bu rëy nag sag bi li muy rëy sas bi ëpp doole kon ñun duñu sant duñu la gërëm dañu ñaan yàlla yàlla suturaal rek dimbali la ba seen bàkki way juróom ndax moom kat amoon na cër sëñ Tuubaa boo xam ñëpp natt kenn nattalu ko ndax ñaari mag ñam wutu seeni saaw ko ci saayir waaye bëgg sëñ Tuubaa ak façon sëñ Tuubaa moo ko àggal fu ñu jëm te waxoon sëñ Tuubaa waxoon ne kat ba mu ba mu feeñee jamono dafa wax ne sama yaakaar du si moom yaakaar du yaakaar sëñ Tuubaa kon ngeen ñëwee fii yaakaar ji mu am fii moom mii ma am ko fi ngir bëgg liggéey sëñ Tuubaa yaakaar ji bu tas mu ko ci àdduna sëñ bi nii la mag ñi nii la defoon mbirum Sëñ Tuubaa yaatal nii rek la Sëñ Tuubaa moom mbirum daa xatut kenn ku ñu nag war ngaa war ngaa jël cer cer bi jàll ko jàll mu jàll jàll waaw ma ngi defoon Tuubaa fu ne am man nag damay jàpp ne man yaafus laa man xam naa ne nëbb ndax xam nga euh, euh, damay yaafus laa ndax fii wax nga ma tay ñëwal ma fii ma naa nga mën la suñ man bàyyi ma toog fi ba toog Tuubaa foofu rek man xam naa moo bàcc man du ma jàmbaar waaye nag fii daal yàlla bokk njëriñ Sëñ Tuubaa yi rek yàlla bu ngent ci àdduna kon ñu sant dong yi fi nekk xam ñoo si dëkk bi nekk ci dong yi fi nekk daara ci di jàng ndax démb rek saraa naa jëriñ yi nekk ci wax ne tutaan yi fi nekk dara luñ loo xam ne def maan mi nu ko defal amu fi su bay bay bay mi war ko war mooy ay nit ko def waaye noonu rek la sëñ bi waaye nag dimbali dong ñu bëgg jariñu nañ ko bëgg ko bëgg defal da ko da ko ñàkk lool na dara ndax ëllëg ñu mën a am dara waaw ngàddu lépp def nga waaye nag bàyyi dañu liggéey suñu tuwaar ñëw ñoñ ci am ndax seen bàyyikat yaakaar suñu tuwaar rek moo fi kon nag sëñ bi barab baa ngi nii daal yéen ngi nii suñu bese ngi ñoo ngi nii ñëpp rek waaw na ngeen ñaan rek euh, dara suñu tuwaar bu yàqu ci ñun ndax li ñu duggaale géew waaye nag li ñu dugg duggaale géew tim wax naa ko léegi bi ñu coon ne ko man de su man mënoon am tawfeex ji ñu am fekk doomi suñu tuwaar ma tërbiyo ko naa ko def waaye su ma ko amoon tamit naa fexe lu ma xam ne nangam sëñ tuwaa ci man daa daa daa xeeñ ci moom moom mii dañuy bokk lépp waaye damay jàpp ma jàpp ma ne dama bokk moom dara waaye jàpp sëñ tuwaa lay xool ci moom waaw dëgg la moom lay ba ndax ni xeetu sëñ tuwaa lay banax ci moom di ko di ko wut ci moom tamit jug gi ma jóge ñëw tamit day jàpp ne euh, am naa fi ngërëm sëñ tuwaa xam naa waaw ndax loolu tax moo tax jóg loolu tax jóg ndax ba ki dem laa jógee Saloum ba ñëw daanaka son naa son wax mun waaye ma xam ne ñëpp ñëw fi ñëwoo fi donte moom mii du ko jàppee dara sax waaye nit ñi sax ba nañ gis ne kii kat lu tax moom mi day nii moom ñëpp lu wote ñu wote ko te man bu ñu ab xare maa waroon njëkk daanu waaw maa waroon njëkk daanu ñëpp daanu balaa kenn daan maa waroon taxaw sa kanam defal lépp maa ngi jéggalu jax gi jëw waaye te xam ne sama xolal fi mosu jóg waaw maam mi mii wax naa ko xam ne ko taxaw nga ma fa ndax li ma bokk yow waaye nag man naa ñëw bu soo yàlla lu ma ne wax na suñu alaaji bi soo bëkki dem lañu ci guddi jógee saa nga xam ne ginnaaw ginnaaw bor riba lañu jógoon yoonu mbett boobu ndikki xaw mel lu sonn waaye dama ko nuñu maa def donte àgg fa bi gis ñu rek nañu fa dem si am sa bi wax ma loolu ñu ñu ànd fa ñëwandoo pour teewal teewal si eh, suñu jëmmi bopp yi ndax dañ ne eh, làmmiñ man wax làmmiñ mën naa wax lu dëgg waaye tànk fu mu dëgg la kon fii sori na soriwut ci guddi gi nag daara Hizbut Tarqiyyah ci njiital Serigne Youssou Diop àndoon nañ ak kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ñu yëkkati fa xaside yu am solo te yaatu lool ci teewaayug ba Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadre قتال قتال la سبينة بكل الجنة من داري من نيابة من